gaa yi tënkum xibaar yi ci suba gi tey la dimanche ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ñaanal leen jàmm gaa yi nga xam ni yeewoo gun bay naan kafe ci dimanche gi ñu ñaanal leen ñu yeewu ak jàmm information yi wér te wóor ci Aladji Malick TV foofee ngeen koy amee Kylian Mbappé dikkoon nañ ci démb ah, tey jii ñancoo na saana Sadio Mané ca këram loolee lépp danañ ko bitar ak kii di Neymar Senior ah, buruxlu fële ca Bayern Munich digganteem ak Angleterre ah, nga xam ni Harry Kane foofee tamit 114 millions d'euros bokk na ci li nga xam ni moom la goney allemand yi bëgg a def foofee wala moom la waa Angleterre di laaj looloo nag Bayern nee na no problème Sadio Mané ngeen gis ko noonu ñancoo national notre fierté ca këram nag mu dajale football bi maanaam gars yi nga xam ne ñoo ŋànk football bi yëpp ñu football fa match yoo xam ne ca biir këram teenaw bu ndaw boobee ca Puqus mu def ko fa ngeen gis ko moom Mbaye Diagne boo xam ne daanaka nuroo naag match bu gala ndax ay xaritam ñëpp nag ñu daje foree kafree ndax moom moomee loolu la xam jàmbaari Sénégal ji loolu lépp daanaka bu ñu ko tënkee muy Sénégal goo xam ne gu mucc ayib la Sénégal goo xam ne xàmmee nañ ko bu baax a baax ci jëf ju rafet joojee Harry Kane Skype Sport ba nga xam ne ma nga ne ca Angleterre raafale Italie ak fa nga xam ne mooy Allemagne am na doole trop moom moom mais xam la ni 114 millions yi nga xam ni gone Tottenham yi bëgg nañ ko Bayern Munich pare na pour daal di galgal génne xaalis boobu bépp ni ko bicc ci penc mi bu ko defee man na yongul yollu ngal gone gi mu ñëw fële ca Bayern Munich kon Harry Kane daanaka meilleur club du monde di Real na ko fii may wax ak yow kii di Bayern moom la gën a jige fekk na booba Kylian Mbappé sol na mbuj mu mu yees moo xam ni mu yees fekk la am yéene sol ko nag déwén maanaam saison bi nga xam ni moom lañ dëgmal ndax donte démb vidéo bi ñu mujj dugal ñu ngi leen doon wax naan 200 millions d'euros yi taqat nañ leen ko ni nga xam ne moom la ñoo ba jeexee te it waxoon nañ leen ni loolee Real Madrid ndax boobee dina ko ñi mee def ci Mbappéem déet loolee tamit daanaka fi mu toll nii léeragul nañ waaye li leer moom mooy Mbappéem moom jël na ab préparation sol moyen boo xam ni day wane ne football katu Paris Saint-Germain la loolee am solo bu baax